tant que vice président tey xam nga chaque vingt cinq décembre euh, dañuy amal li nga xam ne si mooy assemblée générale ordinaire maanaam ci leen tënk activités yi nga xam ne si moom la ñu defoon ci at mi ak perspective yi nga xam ne si moom la am dans le futur euh, di dellu di tuub bi sant yàlla bi yàlla dogale vraiment le vingt cinq décembre ren bi mu tombet sëtu sëñ Tuubaa ñëw fii ah man di ko seedeel rek ni ko Kunna Assane Diagne ancien ministre de l'urbanisme yàlla dogal na moo nu nàmpatal ci lu nu nekk Assane Diagne nag su ma ko waxee sëñ bi xam na ko bu baax ndaxte soxna May moo ko jëloon uuf ko def ko doomam loolu moo nu nàmpatal ci lu nu nekk ba yàlla dogal ñu ñëw fii xamuñu lu dul administration xamuñu lu dul affaire état moo tax ñu ciy dox. Euh, sëñ bi ñu di la yëgal ni rek dëkk bi euh, taalibe yi bari na ay jafe-jafe yu fi am ci diggante li ñuy liggéey ak autorité yi te bu ñu sañoon de kenn ku nekk ne ci jàmm kenn du ne ci ayit kenn du am benn problème ba tax na vraiment jàngoro moom faaw ñu diis ko rek fan ko war a diisee rek ñu def ci ay ñaan ngir mu saafaraw ndaxte dafay doon lu doy waar. boo dem ci commissariat yi wala nga dem ci police yi sénégalais yi seen tur di fa bari ngir jafe-jafe vraiment ci seenub liggéey ñu bëggoon loolu sëñ bi nga defal ñu ci ñaan ndaxte suñu jàmm ak suñu dal vraiment mooy suñu yokkute beneen mbir mi muy ci wàllu kayit yi yaakaar naa ni bépp taalibe bu nekk Argentine li nga bëgg mooy am sa deni ci sa poche di mën a dem di seeti njaboot gi di dem ak a ñëw ba tax na association bi mu ngi ciy dox euh, ay jéego yu am solo. ñoo ngi ci am yaakaar bu baax a baax 2013 lañ fi mujjee may ay kayit lu toll 1300 e quelques sénégalais ci diggante bi sëñ bi lu ëpp 2000 et quelques sénégalais ñoo ngi fi ñii kayit yi ñu jotoon a jox nangu nañu ko te wax dëgg fa yàlla ñoo ngi am yaakaar bu baax a baax def na lu toll ñeenti réunion ak ñi nga xamante ne ni ñooy autorités yi te ñoo ngi am yaakaar bu baax a baax ah ñoo ngi jóge ci 18 safar fanaan ci guddig yonent bi tey jii vraiment di la 25. yàlla dogal vraiment sëtu sëñ Tuubaa toog fi ñu ñëw di ko diis suñu soxla di ko xamal ni vraiment li ñuy dox ci autorité yi ñu bëgg nga defal ñu ci ñaan incha allah ci 2018 bi bala ñu koo génn taalibe yëpp am ay kayit ak i xéewal ba man di seeti njaboot gi di dem ak a ñëw euh, beneen kàddu bi di ko tënkee foofu noonu di ko tëjee sama waxtaan mooy ñëpp gis na ni dëkk bi amuñu fi ambassade amuñu fi consul donc association bi sol mbubu consulat sol mbubu ambassade ngir nekk di jaamu soxlay taalibe yi ba tax na sëñ bi ñu bëggoon nga ñaanal ñu parce que association bi tey jii kat jël nañ benn décision ñu ñu danoo bëgg benn siège boo xamante ne si ni moo ñu représenté nekk fi suñu consulat nekk fi suñu ambassade ndax bu ko defee benn jafe-jafe bu sénégalais amati wala benn tramité booy dox dootoo dem fenn da ngay jubal directement ca siège boobu noonu fa ngay déposer say kayit fa ngay doxee say tramité lépp lu mu war a def foofu lañ koy defee bu ñu amatee ñu teral ko foofu tere ko foofu noonu réunion bu daayiree amati ñu di ko fa defee parce que sëñ bi kat dëkk bi métti na te fu nu toll ci location la ñu nekk léegi la ñu bëgg suñu yëf yi bopp. loolu la ñu bëgg nga ñaanal ñu ci ci kaw loolu kat vraiment may jàllale information boo xam ne si nii ci association ba la jógee sas na sénégalais bu nekk 300 pesos bis ni ki tey pour ñu dajale ko pour mën a wut siège boobu noonu ndaxte dafa fekk ni kat comme amuñu fi représentation diplomatique te dafa am loo xam ne kenn ko defal ñun ñoo koy defal suñu bopp. ba tax na ñu bëgg kenn ku ne ci saw ñaq nga jël ci trois 300 pesos ñu jox ko jëwriñi daayira yi ñu dajale ko ñu yóbbu ko ci association bi ñu taxawal fi benn siège bu am solo fii ci digg dëkk bi drapeau Sénégal di ci flotté mu représenté représentation diplomatique. ku nu gis fii vraiment xam ne sénégalais ñu organiser lanu ñu gëm lu ñuy def la ñu bëgg seen bopp lanu parce que même tubaab yi sax dañuy jóg di wut information mais xamuñu fu ñuy aw mais tey ji bis bu ñu amee siège boobu noonu mu représenté fi association bi représenté fi consulat bi représenté fi ambassade bi yaakaar naa ne dina doon lu am am solo information boobu moom lañ jëlee woon ci assemblée générale bi muy ñaari point di xamal ni ñu dalee wàllu kayit yi tramité mi a baax daanaka phase moo ci des moo taxaw ñu lancé ak sa extrait de naissance ñu defaral la ko affaire étrangère indi ko fi ñu yóbbul la ko Brésil defaral la ko nga ngànnaaye ko ba bis bu ñu signé euh, incha allah convention bi rek ba luy décret bi génn na rek su ko defee fekk na ñun ñëpp ñu jekk yàlla mën na ko yàlla na ko def ñoo koy dagaan sëñ bi ci barkeem maamam mu defal ñu ci ñaan été bi ñuy jublu mu vraiment mu nekk été bu ñu fi musa été rek mu dàq ci ba xéew li mën a yokk kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne vraiment ñoo ngi koy sumb nag vraiment ñu ñaan yàlla yàlla dogal vraiment mu nekk kër sëñ Tuubaa yi gën a rëy ci àdduna yàlla mën na ko yàlla na ko def ñuy tuub nag di jégalu ci kàddu yi ñaari information yi rek lan ma waxoon pour ma jàllale ko ci mbooloo mi waaw ñoo ngi xamal ni affaire u AFIP bi comme tramité bi mi ngi en cours te jeexagul képp koo xam ne ubbi nga sa AFIP danoo bëggoon vraiment ngay fey sa obra sociale nga bañ koo dindi nga bañ koo dagg parce que wéré di dund ak wéré di ñoo ànd te vraiment jafe-jafe yi bari na mais boo ci dindee sa obra sociale tey ji boo demee ci hôpital public yi du la attendre wala nan lay attendre du la gënal ba tax na vraiment ku ko ci mën a bàyyi mooy li gën di tuub nag di jégalu ci kàddu yi bu amee lu dëng rek vraiment ngeen xam ne ci matalik doomu aadama bu amee li ci jub rek ngeen xam ne ndimbal suñu borom la vraiment ndaw nag dafa metti daanaka lan fa tënk lépp ci journée bi tey bii vraiment ñaari point yooyu rek moo ci am solo ñu bëgg ko fàttali nit ñi muy siège bi nga ne si dañ ko bëgg taxawal ci 2018 bi ak euh, problème mu kayit yi nga xam ne ñoo ngi ci avancé na bu baax a baax di ci dalal xelub taalibe yi di dagaan sëñ bi rek mu defal ñu ak ñaan ñun nag dañ di ay xale yu ndaw bëgg ku ñu téyel suñuy tànk vraiment xam nañ fa ñu jëm nag sori na trop incha allah parce que Assane Diagne dag daal na ma wax ne ñi nga jàpp boo ko bàyyiwoon bis dina ñëw ñu dégg la ci réew mi loolu moo doon wax na vraiment maa ngi ci am yaakaar te incha allah rabi bëgg naa 2022 incha allah ñu nekk ci penc ndaw réew mi ñoo koy ñaan di ko ñaan ci sa barke maam vraiment bu ñu sañoon nga defal ñu ci ak dog defal ñu ci ñaan incha allah rabi